94 Walf Sénégal di lu si na di leen siyaar di siyaare mboolem ku toppal 94 Sénégal analyse chronique yoo xam ne leen ko defal saa su ci réew ak bitim réew ñu ngi leen di bu baax te di leen siyaar way leen di toppal 94 Walf Sénégal ñu ñëwate ci Bougane mi rek Bougane mi nga xam ne moom chaque jour saa rek bis bu yàlla sàkk dina créer wax daal maanaam dana créer yëfi boppam yoo xam dina ko indi daal waaye saa soo indi rek ñu ne ñu tontu rek voilà gisoo gisoo maanaam li ñii li ñuy doxal gisoo ji dara yow euh, yow dèjà ah, sénégalais yi nee bu fekkoon da ngaa nekk ab gisaanekat doo bari client ndax yow doo gis dara ndax yow deuxième tour deuxième tour nga gisoon te deuxième tour amut kan gisoo voilà yaa ngi ni tamit ni euh, gisoo ni maanaam ñi jàppoo ni maanaam danoon doxal réew mi loolu nga gis yow sa gis-gis kenn du ci compter ndax doo gis loolay problème bi ndax da ngaa xës a voilà soo xasee laaj ji moom jeex na mënutoo wax dara lo xam ne ni Sénégalais yi dinañ compter ci yow voilà bu doon yow cote seeb fi mu toll na da ngay da ngay dem ba toll foo xam ne nii maanaam nit ñi dañ lay def kon ni defoon El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf ngay doon ci nit ñi saa soo génnee gars yi jël say photo di la ko di ko taf voilà ay nit ay nit yoo xam ne ci réseaux sociaux yi la ñuy nekk saa soo génnee wax ñoom ñu génne sa foto taf ko di reetaan di la tegal foofu noonu ay croix yu kenn xamul foofu ngay mujjee gars moo tax nit ki nit ku nekk rek sa image nga am sa kàddu nga am du foo toll rek am naa rajo wala am naa télé damay génn wax nu ma neex gis nga ñii nii sa gis-gis ci ñoom yow compté wut ci yow ndax da ngaa gis fii deuxième tour amut yow bu fekkoon da ngaa nekkoon ab sëriñub tariyaax da ngay lajj ay clients yi maanaam ay client doo ko am tey nga noppalu voilà yow gisoo te gis El Malick Ndiaye di am ministre boo xam ne ni wàcc na ci terrain bi dem ci sëfoor si di wax ak ñoom pour ñuy wàññi paas bi foo ko mos a gis ci euh, ministre yi voilà gisoo ku mel ni Cheikh mu dem ci ndox mi def kémt lay kattan wàcc ci terrain bi ah pour ñu mën a régler ndox mi balaa inondation yi di ñëw ak yooyu gisoo leen gisoo loolu yow voilà ah gisoo pétrole bi euh, euh, feeñ maanaam ñu ñu génn ci bërigo ah, ba ba ba biram Souleye Diop dem ca palais ba dajee faak Bassirou eh, Diomaye Faye sunu président di wax ak moom ngir naataay yi nga xam ne gis na ko eh, ci réew mi maanaam yow ci sa jëmmi bopp maanaam da ngay dem ba toll foo xam ne nii dañ doxal rek maanaam dèjà da ngay dem ba maanaam yow bëti nit ñi da nga ciy nekk loo xam ne wayeef lay doon ci yow ñi dootuñu la xoole ci ci ci bëtu image image boo xam ne nii image bu bu bu professionnel lay doon wala image boo xam ne dafay doon image bu xam ne jox la cër la wala kon bàyyil xel bu baax a baax xam ni foo toll di wax am naa rajo wala am naa tele di génn di wax nit ñi maanaam ab dof lañ lay jàppe nga baal ma ab dof lañ lay jàppe kon jàppal ni maanaam wax dëgg yàlla saa su nekk saa su génnee di wax rek sénégalais yi moom mën nañoo tontu te yaakaar naa ne Ousmane Sonko moom yaakaar naa Eh, liñ naan internet bi moo ko moo ko fàtte ndax gaayam yëpp a ci internet bi wala boog ñi ko bëgg ñëpp xëy na moom mun mënu cee mañ a xam kenn waaye ñi ko bëgg ñëpp a ngi ci internet bi ñi nga xam dañ leen di topp ñi nga xam dañ leen a fal daanaka mën naa ne ñëpp ñëpp ñëpp ngi ci internet bi kan bàyyil xel loolu bu baax a baax baax